def ricochet rek xam nga aar Sénégal xam nga aar suñu élection dafa mel ni ñoom ils ne sont omnibulés que par la date de la tenue de kii présidentielle parce que loolu la ñuy wax mais mais mais la population demande que les élections se fassent à date la population mënoo quantifier te kenn amul. également la primeur wala am ne moom moo légitime pour wax au nom de la population. plateforme la d' accord nañu lu ñuy def c' est très louable je suis parfaitement d' accord ak ñoom lu ñu def lu baax la ndax day concourir à ce qu'il y ait une très bonne démocratie, à ce que les gens respectent les lois et les règlements. Tout à fait. Parfaitement. Mm -hmm. Mais le processus électoral dafa commencer depuis le avril mm-hmm. Mm-hmm. ñi waroon inscrire inscrire ñu waroon dem gars yi tëj du ngeen inscrire mais ñun ñëpp ça devait les intéresser parce que processus bi fa la tàmbalee y a des frustrés depuis 6 avril ba léegi. Mm. fichier électoral bi les 900000 ci nekk te kenn gisu leen ça devait les interpeller ñoom du date bi rek. Mm-hmm. du tenu élection kese. parce que tuni boobu noonu ni ñuy teg bët tuni tuni tuni na am na am na am na am xalal na la jur après des contentieux post électoraux hmm. te le Sénégal de 2024 n'est pas le Sénégal de 2000 on est un pays pétrolier et gazier étincelle bu ndaw mën na fa indi jéye ok <laughs> vous êtes